bonjour wala bonsoir chers amis fidèles téléspectateurs de Sunugal 24 nuyu waat nañ leen bu baax a baax a baax topp gi ngeen ñuy topp waaye rawatina tamit bi ngeen ànd ak ñun suñu émission bi nga xamante nag moom lañ dëppee sama tana émission bi nga xamante ne tubaarkàlla maasàllaa saa su ne nee la ndaw ñi moom la bëgg waaye sénégalais yi moom la bëgg waaye nag émission bi du ma ci wet benn yoon ndax ki may àndal moo tax muy DJ Zal ñu gën ko xam ci Fouguere DJ Zal maa ngi lay siyaar bé mo bëgg naa la bàyyi nga mu jàmm waaye di la jaajëfal bu baax a baax ay di nuyu ami fidèle téléspectateur de Sunugal 24 saa su ne amaan mbégte ak kontaan ba mu mag hmm. ànd ak yéen ci biir plateau bu yanj bii nii le meilleur chaîne du net Sunugal 24 di leen jaajëfalaat bu baax a baax yéen a ngi ci biir émission bu mag bi hmm. sama talent le meilleur émission du web. ayca di la noonu saa su nekk rek comme ni ñu koy daal waxee rek le meilleur du web. ndax mhm. sénégalais yi ñoo ko bëgg tubaarkàll waaye tamit gars yi dañu koo tàmm émission la boo nag ñu dalal. fas yéene boo xamante euh, euh, euh, ku ku yi ràññee la. Mhm. waaye ku sénégalais yi xam la ci domaine bi mu nekk muy wàllum rap waaye tamit da cee boole wax wax boo ko déggee mhm. activisme ah, di commencé di waxal li nga xamante ne moom population waaye tamit waxal li nga xamante ne moom mooy réew mi mhm. ah, ñu gën ko xam ci MC Mass MC mhm. Mass nag mooy ka nga xamante ne nag daa duggoon ci gàlle mhm. <laughs> jinne yi daat koy dàq ji mu di daw ah, <laughs> ah, moom maa ngi lay ziar di nuyu Sall di nuyu waa Sénégal yëpp di ñaanal suñu Muntaxa Mbakke mu yàgg te wér ak mboolem xalifa général di ñaanal Cheikh Maye Niass jëf ju rafet yi nga xam ne def na ko defal ko àdduna defal ko Sénégal defal ko diine ji yàlla na ko suñu borom yokk taxawaayam mhm. yokk kàttanam may ko gudd fan ak wér ba mu yàgg fi lool lool ba mën a jëriñaat doomu adama yi bu baax a baax mhm. di nuy waa Parcelles Assainies 1 ba 26 mhm. di nuyu waa Grand Yoff nuyu sama label Alpha Music Atofal gaa yëpp maa ngi leen ger ziar ko añ ayca bi ngi noonu kooku la ñuy gën a xam ci MG Mass en ah, toir kàll bokk na si ñi nga xamante ni euh, Sénégalais xam waaye a a baax a laaj dëgg <laughs> loolu am na solo trop ñu gën ko xam ci MG Mass nee la bu ñu retourner tuuti en arrière mhm. ci ay vidéo dinañ gis vidéo bi nga xam ni macha allah defoon na ko fi interview bi nga xam ni ci biir mhm. kër gi sax la ko defoon mu am doole trop mhm. avant muy tàmbali rap dawoon ne daa mbëkk ji dugg ci gaal yi ba mhm. ay jinne la fa gis xaw ma ne mbert ak dawar ñëw xam naa moo tax muy wengal kab beeg yooyu noonu mbaa jinne ba tey dañ laa jàpp jinne yi jàpp ñu ma jinne yi da eh? <laughs> eh? ah, daal gis naa ay nit yu say daal di wax mais moom jinne moom gisuma ko damay dégg ci biir gaal gi ah waaw si am na parce que gars yi moom ku nekk jëfur ku nekk ak lu nga doon wax rek hmm. ah am na ko fa doon ay teg leen seen téere yi wala ma naaw après benn paa pël bi fa nekkoon moo ne kii téere yi mu taq nii bu ko seeree ndomba yi day naaw ko après si la ko gaay waaw tax ko si gaal bi ba mu dee gars mujjee ko sànni si biir géej bi quoi hmm. waaw ah mais yow client nga rek balaa ngay départ wax nañu leer nañ jaasi yaa ngi nii paaxe yaa ngi nii buum yaa ngi nii képp koo xam yëg ngi si gaal bi di da ko ne dañ tax si buum tëmbali si géej bi nga ne waaw d'accord naa te clandestin bu ñu ko waxee jeexal na wax mooy amul loo amul loi mhm. même boo deful dara sax bu ñu tëmbali si géej Hmm. waaw am équipe ñu toog ñu mat dix personnes wala quinze personnes ñoo xam ñooy gérer gaal bi képp ku fa déconné wala nga def loo xam warul def ñoom lay teg si yoon ah, ah, a ko di mm-hmm. dëgg ah, la alxuraan wax sax boo rey nit sax dañ laa war a rey mm-hmm. mais ku nga xam ne dana mais kooku nag gars yi jëluñ ko woon uniquement pour tëmbal ko si géej bi dañ ko taxoon noonu parce que li doon wax moo bari te wax yoo xam yow mosoo ko dégg te jaaxal na la Mhm. waaw tekki leen seen téere wala man naawal ma ko parce que Daniel moo waxoon na gars yi bu ngeen ma tekkiwul mhm. Espagne Maroc ngeen dem mais du ngeen mës a dem Espagne mais bu mhm. jël si leen mais euh, gars yi ñoo ne mu leen ko tekki wóorul wóorul parce que rek xam nit boo xasee bu la xasee tiital mooy la mais finalement lu mu waxoon loolu mu am waaw ñi ngi seen Espagne yi mais mënuñu yàgg marinu Maroc bi moo mujjee ñëw si géej bi jël si ñu après moom nag bi ñu ko sànnee noonu bi ko gars yi sànnee si biir ndox bi si la si la marinu Maroc bi ñëw jël si ñu

jënd ci la ñu jëndalee benn ballon foofu fële ñu petit camp comme yàlla dafa dogal na ma yàgg mën football. Mhm. ba benn ma naar mi ngi ma wax naa doo dem doo dem Liverpool nga dem comme As Diouf. Mhm. xam ñoom El Hadj Diouf As Diouf lañ koy wax. ñu ah. <laughs> ne ma ne da nga mën football da nga dem dem Liverpool nga def comme As Diouf. <laughs> ku la tegalaatoon gaal di nga dem. non gaal lu ma koy doyee fi mu toll nii kilifa laa ma am jabar ami doom di dugg si gaal. Mhm. Ah, a waaw di am samay jéem ak samay daqaar. waaw moom la defoon ah, ci parcours mhm. euh, demoon li nga xamante mooy mbëkk ji immigré yi waaye yàlla dafa def mu daal ñëwaat ndax junne yom fa gis a tax tubaarkàlla dañuy ñëw ci li nga xamante moom mooy carrière musicale bi parce que moom euh, dafay def ñaar dafa boole ñaar muy que euh, da ngay rap mais en plus boole boole ko wax boo ko dégg mooy activité ñëw rab bi ah. rab bi depuis quand nga ko commencé ak ban an nga ko commencé rab bi depuis 2009 maa ngi rab ah. maa def sama première vidéo mu ngi tuddoon marchand ambulant mhm. marchand ambulant waaw mooy jamono ji ambulant yi xeex abla jamono bi metti boobu rek c'est mhm. la njëkk a inspiré bind ci benn texte finalement man xaar mu dugg studio quoi mhm. fii nag man maa fi seul rapport boo xam musuma topp rapport hmm? maa fi seul rapport boo laa nekk di bind samay texte di bind bu yàgg sama benn copain bu ñu wax Thier moom gis na am na studio bu nekk fii mm-hmm. si lañ demee foofu gis moo temps yi mi ngi si Papis Ndiaye maa ngi koy nuyu au passage di gaañ bu baax mm-hmm. après na ma amul benn problème soo bëggee duur nga ñëw ma dem waaye di ñëpp xam nañ ko moom a jaayoon benn séeréer boo xam ne amoon na dix mm-hmm. dix euh, kii yoo xamante ne ay ay instruments la après si laa doon déglu ba am benn instrument bu Bart Rems Mhm. si laa njëkk dóor boobu sama son boobu muy marchand ambulant bi mu nekkoon vidéo boo xam amoon na solo Sénégal yi mais toogoon naa fi ay temps rare nag. Mhm. parce que demoon naa ba finalement dama ne lii damay bàyyi mais xam nga rek nit moo moo sa bopp. dëgg la loolu waaw moo moo sa bopp nit yi booy ana album bi fa toll son bi nga defoon nice na pourtant maa ngi la doon bàyyi xel. Mhm. loolu moo lay indiwaat mais bu fekkoon ne dañuy wut xaalis kese kese kese si rab bi kon bàyyi nañ ko bu yàgg mm-hmm. mais ñun xaalis bi ñun ñooy investir suñu xaalis amuñu kenn ku ñuy financé dara ñëwagul mm-hmm. ko nag parce que ñu ngi ciy am nit ñi nag moom mm-hmm. wax dëgg yàlla des fois nit woo la wax la ci loolu sedd sa xol nit encore waaw xaalis moom baax na trop waaye nag <laughs> <laughs> xaalis moom baax na trop xëy na mi ngi ñëw dafa yegg seegul eh, eh. xëy na dafa ñëw parce yoon boo ci nekkee doo yàkkamti comme ni nga ko nongaloo doon waxee yoon bi gudd na lëndëm na bëri na xaaxam loolu moo ci nekk soo ñemee dem mais soo ñemul doo dem bay toog parce que bokkuñu ñi nga xam dañ naan bëre tàkk léegi fay léegi hmm. parce que li ngeen wax comme seen émission bi dafa am solo sama talent hmm. nit talent day nekk ci moom dëgg la tamit bu ñëwee talent talent dafa nekk ci man parce que lu may def du ma ko mën hmm. mooy li ma la wax sànq waaw son bu bu bu ma bëgg a bind mën naa ko bind texte bu ma nit jox wala tem bu ma nit jox mën naa ko bind. Mhm. comme yàlla dimbali na ma ci loolu am na solo. Mhm. mais mais mais mais li ma leen laaj mooy que lan moo la inspiré yow lu tax nga bàyyi fi mbalax ah bàyyi fi reggae ah bàyyi fi bàyyi fi leneen rek. ci yëg caay nga taamu dof li nga xamante ne moom mooy rap. waaw rap parce foofu lañ doon déggee dëgg ko rap waaw nekkoon musique boo xam moo dafa engagé wu di xeexal askan bi di wax askan ah, waaw fu mu toll koy moo raw supp kànja moom hmm? rab bi ñu gis léegi moom moo raw supp kànja parce léegi moom fañ doon xaar gisatuñ ko hmm. mais tamit xam nga comme léegi wut xaalis dafa xew gars dañ naan boo fi nekkee di wax dëgg gars yi duñ la defal li bëgg pour ñu mën la déglu gaaw am xaalis hmm. moo tax boo gisee boo léegi commencé di war ci oto yi luy ay da ngay yàkkamti am na ñoo xam ñi ngi def loolu tamit lu ñu doon moo tax affaire bi change la parce que lab bi dafa laaj branlo dafa laaj ginnaaw mhm. dafa laaj jàppale mhm. te loolu bu fekkee amoo ko même boo amee sa talent sa talent du feeñ mhm. dëgg waaw parce que moo koy def moyen moo koy def parce que pour nga dem si joo foog ngay fay xaalis clip yi la même foog nga am branlo invitation yi foog nga am branlo parce que Sénégal moo mel noonu mooy li ma doon wax rek États-Unis boo fa demee xam ne lu ñu lay liggéey nga mën a ñu jox la liggéey France lan lañ laaj ban diplôme nga am mhm. mais Sénégal gi xam lan moo fi am kan moo ma booleeg yow réew mi dafa nekk réew moo xam lépp dañ ko politiser loolu moo yàq réew mi mhm. mais bu dee ko ne talent wala bind wala wax lu nit ñi dégg rapport boo ma fi tegal ñeme naa freestyle ak moom mhm. parce li may def dama ko mën gaa yi dañoo dof de gaa yi fi ne léegi ay ñoom. non gaa yi ngaakaak ñoom di ba gaa yi. non gaa yi fi nekkee ay sama gel bi sama gaan bi sama dàll bi sama oto bi yooyu amul sens. mais foofu la réew mi toll. foofu nit ñi dañu xiif dañu mar yow yow yow mi naan sama dàll ak seen boo duggee seen kër bu ñu añee du ñu reer loolu amul sens. bëri na tey ñu fi cëpp cëpp nii ci tale bi sol lu nice ngay cëpp ngeen boo demee seen kër demal nga xool ni dundee. mais loolu bëri na fi loolu sutura rek la. ah waaw mi ngi noonu nag mais du tey nag des nga def sang yoo xam nit ñi danañ ko bëggee nice mais des fois nga waxal nga yaakaar ni yow boo ko defee nga ni yan parole nga wax ban sang foog ñu yee salaat xel yi raxasaat xol yi yéenante jàmm sax ci ku ñuy sàmm àdduna amul xarit bu ko wutal merit bëggul kenn jàppul kenn li yóbbu bàyyi yóbbu yaay duñ fi bàyyi suñu xel yi nañ ko ci bàyyi mm-hmm. te ñu koy sóor ci bépp boor matul kilifa bu ko def xalifa soo ko jàppee dalay war kon fayal say bor nañu not suñu bàkkan fii dara du fi sàkkan lépp ci neen lay mujj nañu fexe mucc ci ay mbugal sax ci ay ndigal moo ñuy dimbali te moo ñuy jàllale nañ fonk juleeg woor te bañ ci taamu weeru koor àdduna dañu fi jaar indi na ko ci ay saar yàlla moo wax te du ay nax bu leen ma xeeb ni ku ceeb du samay wax damay jottali ak di leen fàttali li ñu war a soxoo te war ko jagoo àdduna kenn du ko tiitaroo jàppee ko ni biibaron fii moomuñu ko sama waay dandul ma ko daf ñuy sànq ci pax la ñuy bank nañu tudd sikrulaa te sant illa ilalaa mhm. surtout asamaan jarul boxante kon li fi des jarul rayante ay million jarul ay million tër nit rent xattit ku koy def war nga tiit xeex sa noonu laa am jàmm kon nañu xool kay borom jàmm Sénégal bi mu xamoon di bii Sénégal bi mu miinoon di bii Sénégal bi nga doon lekk ba suur desal daal di tuur Sénégal bi amoon diine ñëpp bokk yéene Sénégal bi amoon jéggale ak jëlale Sénégal bi ñu la doon yërëm te duñ la def xërëm Sénégal tey ni mu demee nii Sénégal yi tey lu muy niru nii kenn xamatul kenn kenn yëgatul kenn lu dul bopp sa bopp ku sàggan ñu dagg sa nopp ñu am il de ngor am il de waaye gore wu ñu amuñu ngor ku jokk sa morom wor boole ci bëgg tuur te yan ñu lii mooy sunu feebar ñu war koo càmbar réew mi tawat ñu war ko war nit ñi dëkkee njàmbat mm-hmm. koo gis mi ngi saqat oq oq juddul jeex kenn dootul feex réew mi nañ ko ndëppal ndax ji koy nasaraan lañ fi tàbbal ñu di leen dàq te duñ leen dab nañu toog raxasaat suñu ndab loole sunu jàmm te nañ ko sàmm réew mi dëgg ne àll woo nit ñi taxaw di yuuxu woo mag ñi amatuñu ngonal xale yi amatuñu njoganal war a kàcc dëkkee sàcc réew mi di gën a tar gars yi jubali grand théâtre boole ci yar ji ji koy xar ñëli jël xiif ak mar jël alal ji di pasar pasare ñeneen di tàccoo ko ree mm. ba ñu ma ci wax bu bëri noonu ba ñu ma ci wax bañ dóor ma goon lépp ngir sama askan li ñaaw ci dëkk bi dafa sakkan bu dee wax moo koy dindi dinaa bokk ñi leen di gindi foog ñi doon wax waxaat ñi doon dégg déggaat wax ba génne télé tuuti benn xale kaani mënul jur jaxatu ñam bi mënu jur netatu ku ne xamal ki nga doon te nga jël sa yoon ñoo bokk fu ñu jëm waaye bokk ñu lu ñu gëm na xel yi xalaat ba ñu nooni salaat ku ci bëgg a raw foog nga mën a daw Afrique suñu Afrique suñu njiit yi xamuñu nguur ku ci falu def sa bopp buur ràccal sa bopp ak say mbokk topp sa bakkan fàtte sa askan waral Afrique deltu ginnaaw ñu jàppe ñu ay ñanaaw Afrique lañ war a bàkkoo te war ko sagoo waaye dëkk ci xeex reyante bu dul jeex foog ñu indi doxalin bu bees te bàyyi këpp kees ku wàcc du mooy sa dëkk dem Europe dëkk looloo fi war a jeex te war nañ ko xeex MC Mass moo ko bind moo ko maas di waxal ñu bëgg a kaas te amuñu baas ndax dañoo dëkk jolof di wax olof dëkk ci ay tolof tolof ay chef mi ngi noonu loolu am na solo trop MC Mass ah defe naa ni moo dégg nga parole <laughs> jur jaxatu ñaam mi mënul jur nettatu déggal yooyu ah? Ah, salaat salaat rek lay jur maa ko wax waaw loolu ne tey ji dugal na ko ci euh, dóor li nga xam ne moom la moom la fi dóor léegi nii mhm. doon li nga xam ne tey jii nii mhm. ba mu ko dóoree yàgg na 2014 ba léegi 2014 te gis nga gars yi ba tey daal naa ni eh, ñu ngi koy dund mhm. mu doon parole yoo xam ne am na solo mais tey jii nii wàllu milieu bi peut-être euh, gars nooyal nañ rab waaw mbalax jàll fii gars nga déggoon ñoom waaw yenn artistes nii bañ ci lañ nekk international loolu noonu est que foogee woon tey boo wàccee lii dugg ci lee doo dem dooni international dina la daal waaw li ma la wax rek moom mën nañ ko ci boole mais du tee suñu engagement bi ñu am ko quoi mhm. parce que des fois nga def ay son yoo xam ay mbëggeel mhm. yoo xam nit ñi dañu mañ ko gis mën nañ ko laay xam nga mun naayes ñoom ñu bëggee ko mhm. mais du tee nga fàtt bul fàtt yow fi nga jógee parce que base bi la gaa yi fàtte léegi dëgg la man bañuma lu ñuy def parce que butu drill yi xew américains yi moom la ñuy yi moom àdduna bi yëpp moom la ñuy def yi mën nañ ko def mais selon li ngay wax nay am njariñ dëgg la deuxièmement tamit bu fàtt li nga jóge des fois nga ne ah comme réew mi metti na wala agression bëri na wala lii bëri na xaaral ma def sensibiliser sama askan mhm. dafa am importance surtout parce que ndaw bu waxee ndaw dina dégg naa na comme kii jeune la li may conseil dinaa ko dégg mhm. waaye pourtant kii mm-hmm. parce que dëgg la jeune la may jeune te nee naa ñafe sama life pourquoi man du ma jug ñafe sama life mm-hmm. parce que foofu la ñu war a toll niveau bi foofu la war a toll mais tey jii bu fekkee ne jël cent ni rek placé ko foofu rek ci wax lu neex wax lu neex génne lu neex ay vidéo yi naa ci mbëggee rek nañ bëggante bëggante mhm. c'est bon am na solo waaw am na solo trop <laughs> uh-huh. bëggante am na solo trop mais du tee nag ngay waxal askan wi parce que tamit musique dafa war a nekk loo xam day jàngale dëgg la comme ni ko ndem si yàlla waxee woon coon way bu diglewul yeetewul ay naxaate la mhm. loolu lu am importance la mhm. way dafa war a digle dafa war a yeete te et puis suñu culture ñu bonu ko bàyyi Mhm. tey ni tubaab bi def ba valoriser costume ak cravate. Mhm. ba ku ko sol ñu jox la cër. ñun war nañ ko def ba valoriser xaftaan ak caaya wala njàmput ak caaya ba ku ko jox ñu cër. Mhm. tey sénégalais bu dee góor nga fecc sabar lu ñu lay wax góor jigéen. jigéen fecc sabar ñu ne ko càgga nga nga fecc reggae cëppi cëppi mel ni ko tox say yàmma ñu ne wala nante baa ngi nii wala nga déglu rap américain ñu ne nante baa ngi nii parce ñun moomu ñu loon lii mais li ñu moom war nañ ko mën a valoriser ba jaay ko ci àdduna bi yëpp mu mën a jar parce que Sénégal war na mën a am rythme mhm. mais àdduna bi concurrent bi ngay dégg ban Sénégalais nga ciy dégg tey amul parce que jéemuñu jaay lu ñu moom tama yi sabar yi ah, ah ba ci kooraa yi balafon yi africain yi ñoo ko moom nañ ko jël ñun valoriser ko jéem a xool ñu ci liggéeyee pour mën ko jaay ci kaane yi pour ñoom ñu jënd ko mhm. rapport war na mën a taxaw si seen sol caaye mais tey man bu ma solee kam nii sol nii leen ko jaay mënu ma la tey mais bu ma soloon sama benn tenkaane sol sama benn njaxu sa baay faal takk samay asmaaw mhm. ak samay njël taxaw dinañ ne eh kii mooy kan ak fan la jógee mhm. ma sol caay nekk ci kaw seen bi yor sama maaj di mhm. foofu la may gën a joxe cër que ma sol costume wala cravate wala ma sol cap wala euh, kii parce que ñun tey dañu bàyyi li nu moom jël li keneen moom bëgg ko valoriser bëgg a fàtte suñu bopp <laughs> Mass daa mel ni la de <laughs> yaa ngi dégg parce que damay wax lu am solo <laughs> imaginal tey da wax olof benn mot euh. ñu nga kaw kawee de yow moo ma kañ la wax gëj a dégg la di la kaañoo nga wax benn mot français bu xóot ñu ne wóo sa waay intellectuel la imaginel complexe boobu dëgg yow tey olof bi nga wax olof pourquoi nga bëgg cee am complexe yow loolu nga nàmp nga làkk français bi nga xam nàmpoo ko da nga ko jàng ñu jox la ci valeur boo xam duñ la ko jox ci olof bi ngay wax parce que loolu mooy ñàkk fayda mais xanaa activiste nga mën naa naa nekk activité pareil <laughs> parce que eh. loolu dafa doon lu ma nakkat yi gis nga ñun li ñu moom foog ñu valoriser ko tey ji ba damay jox benn grand ku mel ni Baaba Maal mm. Baaba Maal tey fu mu mën di dem day jaay culture am day dem ba Angleterre gis nga ay tengaane sol ay xaftaan takk ndigg bi di se di fecc vango hmm. tey tey ni ko américain anglais yi joxe cër ak ni ko diaspora bi joxe tey ak ku mel ni Cheikh Ndigal Lo tey hmm. jaay nañ image Sénégal fu nekk hmm. même ba ci Youssou bu demee Bercy des fois nga def mu gis ay grand boubam ñu rafet parce que loolu moo am importance mu jaay li mu moom dëgg la sol say grand bu taxaw Bercy joué ñu xam ne kii sénégalais la lii mu sol culture am la

ñu ci bari fi ñi judd barki démb jaay comme ni nga ko waxee mhm. bu ñu boo ne coon sekk koy dañ naan ne déedéet dañuy foog ne waali ma koy te fekk papam wooyoon na bu yàgg mais waali bi nga ko indiwaat dafa valoriser waat son bi tëggaat ko ci beneen rythme yóbbuwaat ko ci beneen niveau boo xam son bi egg fu woon bi ko papam di wax tey ji mu doon loo xam ni voilà dëkk bi wax nga ci lu am solo mhm. ba ki nga xam ne nguur gi nga xam ne moo fi troisième mandat dañ koy tere fii ci réew mi. yaa koy tere. waaw ñun ñoo koy tere. ñoo koy tere laa bokk parce que parce que président moomoo bi. waaw parce que <laughs> parce que ki nga xam te ni mooy président de la république ma koy nuyu au passage muy Macky Sall. ah mu gën di waxal lu leer da ngay dem de. moom. <laughs> waaw moom moom mooy Zinedine Zidane. Eh. xam nga Zinedine Zidane jël na coupe yëpp. <laughs> Uh-huh. Macky Sall dafa jël coupe yëpp. Mm-hmm. léegi fi may waxee foog ngeen may mu tuuti ma déglu parce que li may wax dama xam-xam la dama bëgg ñoom mu déglu ko bu baax ak ay mbokkam parce que dafa am lu am solo mm-hmm. tey yàlla da ko defal ci politique loo xam ñu bëri Sénégal bëgg nañ ko te amuñu ko tey fii nit politique na fi ba bàyyi mosul dégg sax monsieur le maire Macky Sall directeur Petrosen mm-hmm. Macky Sall ministre de l'hydraulique. Mhm. Macky Sall ministre de l'intérieur. Mhm. Macky Sall premier ministre. Mhm. Macky Sall président assemblée national Macky Sall président de la république ak deux mandats. dégg na tam monsieur le maire maire Fatick. kooku tey lan la ko yàlla deseel. ci xanaa Macky Sall nga faral moom laa bàyyi yeggal rek Macky Sall. kon xam nga yàlla deseelatu ko dara sénégalais yi deseelatuñ ko dara. léegi kon lan la war a mën a taxawaan mu taxawaan ne day laaj troisième mandat. defar dëkk bi mais dëkk bi du moom kese moo ko mën nga fii. géej la rek ku nekk da sànni sa mbaal napp li nga mën a napp dem sa yoon moom ab Abdoulaye Diouf liggéey na li liggéey na li mën a liggéey dem na Abdou li mën mën a liggéey dem na moom na liggéey na li mu liggéey na dem parce bi wala Aly Ngouille Ndiaye keneen ak keneen ñu woote ci seen ginnaaw <laughs> ne leen kaay leen ñu toog <laughs> parti bi ñu def congrès ngeen xool ku ngeen jiital man 2024 damay dem parce bu ko defee tey dina def woy lu rëy loo xam ci Sénégal dañu naan c'est la première fois <laughs> bi ko Senghor euh, defee Macky mooy kii fekk defaat mën nañ ko dem sax bi di ko tëkkale ak Nelson Mandela mhm. parce que moom waxoon na fi ne man bu troisième mandat nañ ku nekk ba mu des moom kon wax jooju na ko sàmm gis nga kàddu dafa am solo ne rek na droit def troisième mandat na ko ci ginnaaw di xamb parce que tey jii ñu defaat ko fi tey avant muy fole ñaata nit a deewoon quatorze personnes ñoo deewoon parce que man maa ngi woon a marre mm. moom mi ngi woon M23 ñun ñoo doon ànd di wàccandoo ci terrain man jour bi ñu validé candidature Ablaye racromaché bi sama digg boobu la bu ma daloon tey maa ngi bàq ya mm-hmm. lépp li ñu ko doon xeex pour démocratie am ci Sénégal ñu amoon ci moom yaakaar kon liñ fi jotoon a tabax en 2012 2024 moom waru ko mën a yàq ndax bokkoon na ci ñi ko tabax mm-hmm. ndax bu ñu daan wàcc ci tali moom da doon wàcc ak ñun mm-hmm. ba bu fàttalikoo jour boobu ñuy validé candidature Ablaye moom mi léegi ay xas na ma saagar na ma lu la wax ma yanaa maar ji di nga dee dina la rey nangam sangam. Mhm. mais tey lañ doon xeex tey bu ñu demee ba gisaat mu ñëwaat kon ñun jërëtoon ñuy xeex. Mhm. parce que Macky Sall. ñun fi lan la si dëkk bi. non du question métti réew deux mandats la ñu wax. Mhm. moom bokkoon na ci nee na nit dootu fi romb deux mandats ne def deux mandats ne dem yoonam daa juum day ñëwaat non non juum ba mu ko fi waxee lu mu ko jariñ def na fi troisième mandat forcé na jàllul financé na xaalis taxul nit ñi gis nga nit yàlla ni muy defee nit ñi bëgg la noonu lay mujjee def nit ñi bañ la day am moment boo xam ne yow lay def ci xolu nit ñi mm-hmm. ñëpp lay bëgg ba ci picc ya xar yeeg ba yi sax dañ lay bëgg mais day def am moment boo xamante nii <laughs> mm-hmm. dañ nit ñi dañ lay jëpp lañu Abdou Macky Sall bu ñu waxantee dëgg bu fekkoon nii mi ngi ci xolu nit ñi élection locale yi mu gagné ko mm-hmm. Macky Sall moo ba mu fi nekk président ba léegi musul gagné maire Dakar munul musu ko gagné te boo xoolee nii résultat yi jàll nii ba tax muy boole ay candidat xam nga ne moom moo la gën a xam ne ba demee législative tamit du neex le moo tul non du question yóbbuwaate man waxuma lu ñu ma yóbbee te man yóbbu ma taxul may wax ndax man yàlla dama sàkk. <laughs> dégg ko fi mu ñëwoon ah? ñu <laughs> si. <laughs> ah man non man nag ragaluma ko ma jës parce que mm. na wax dëgg donte dan lay rey. parce que li may wax kon ñeme naa ko. man moom laa jox conseil conseil laa koy jox moom Macky Sall. Mm-hmm. ngay jox conseil. waaw eh, man bokk ma ci benn parti. yow doo Sonko doo Macky yow mais Sénégal la man maay Sénégal Sénégal foog nga xool koo xam ne moo doxal dëkk bi waaw boo nekkul ci Sonko nekk ci Macky Sall wala nga nekk ci beneen parti xam nga tey ne doo ne Sénégal la voté jot nga taxaw say loxo te naan Sénégal ne su voté jotee dinaa voté man 2012 faa nga am laa àndaloon mhm.

te nag man faxala maasaa luqiya maasaa <laughs> képp ko def loola neex di nga dajak loola naqari lam lebele woon mën nañ ko koo fay <laughs> non ay wax la yoo xam ne ça revient toujours boo xam ne nit wax it na nga wax na nga sóor sa bopp comme <laughs> ñii nekk ci opposition bi tamit nañ sóor loolu ndax boo defee loolu yow it suba ëllëg buñ la fayee say bor bu mu la metti mm-hmm. mais li ma koy ñaan moom Macky Sall mm-hmm. sénégalais ñi ngi koy xaar foo xamante ni réew mi jàmm ji ci loxoom la nekk mm-hmm. na génn ci jàmm ak salaam lu muy prouvé ci politique dañu waxante dëgg bu ñeen liggéeyal ku ne wax liggéeyalu tamit da ngay wax lu la neex am na lu mu fi liggéey ndax lu ne fàng kenn du ko jeex mhm. def na fi lu rafet liggéey na fi ay tali c'est mën nañ ne côté bii pànn muy côté injustice bi ñëpp mhm. d'accord mhm. tey boo xoolee ku mel ni li suñ baara doole li ngóor si Camara wax ko gën a garaaw ñu jàpp ko dugal ko ci kaso bi te loolu rek mën naa yëngal réew te moom tëj ko amalu ko benn njariñ mu bàyyi ko wàññiwu ko daara da koy yokk sax ay nit ñu ko bégee parce que dañ naan président tooñ nañ ko mu Mhm. mais tëj bii mu ko tëj am amul ko benn sens da ko yokk ay noonu rek na bàyyi sëñ bi mu dem ci jàmm waaw mu waxtaan ak ay nitam tamit mhm. parce que ay nitam yow ku mel ni Khalifa tey ñu ngi nii recevoir ko léegi tey moom day dem ba day wane ne léegi ku bëgg a jot ci président foog ngay may ma ma yeggale defal ndànk defal ndànk euh, mm-hmm. mm-hmm. a ngeen a farul fenn waaw yéen a ngeen xeexel Macky ko <laughs> leen bëgg a a ngeen xeexel Macky Sall mm-hmm. ah Sall ba gars yi naan ñoo ñii ñoo yor réew mi ngeen xëy suba Macky muutal waaw assi nitam xam nga kooku noonu maa maa ngi doon waxee fii foofu tey ji Macky Sall moom moo nar a wane yoon boobu tey bu fekkee ne bu fekkee moom day wane ni gars yi duñ dara voilà mais bu fekkee ne yow nit kii saaga moom nga recevoir ñaata jeune fi nekk tey di xeexal ko bay bëgg a dee te mënuñ ko gis te bokk APR mais léegi nga fekk koo xam mi ngi saaga nga dem recevoir ko hmm. naan nga reera naa no ak maa ngi gis liggéey bi mi ngi rafet léegi day wane ne yoon bi tey léegi ku bëgg a gis président foog ngay saaga président pour ñu mën a recevoir bokkal la dara hmm. ah pour nga mën a ànd ak président parce que yoon boobu baaxul hmm. parce que moom saaga yi téewu koo falu bu naree falu saaga yi mënu koo teree falu wax ju bon mënu koo teree kon na nga nekk ci dëgg moo am solo. yow bu la Macky fekkoon bokkal la doo dem yow. kookal la man bokkal luñ may bokkal. ah ah bu la defee ni Macky. ci millions yi yan million ah millions yi de. Eh. ah millions yi mi de boo paree mu bokkal ne la jàpp nga ñëw toog moom du ma ko ñuy bokkal te waruma ko ñuy bokkal parce que bu doon loolu mënoon naa dem bokki APR wala ma dem fëggi bureau yi di sàmmee mbayaan comme yëpp wala ma defal ko sama way ko looloo gën a gaaw de MC mm. waaw nga may défendre non xam xam xam nga ñaari ngay boole yu bokkul <laughs> xam nga ñaar ngay boole bokkul bokkal ma xaalis bokkal ma xaalis pour mu ànd ak moom ci troisième mandat waaw maa day taal la milliard bu ma ko joxoon du ma ànd ak moom ci loolu. Macky Sall. ah mais pour lan. xanaa mm-hmm. ñun néewuñ ne dëgg la ñuy dox. Mm-hmm. néewuñ ci dëgg la ñuy dox. Mm-hmm. parce que man fekkee na man xaalis moo ma nar a jënd pour Macky kon jërëtul may rab bu yóbboo ma noppi sax wala ma ñu yóbbu ma baaxee lekk teg eh, ma su waaw ak i ak i fekkee yow gëmoo dara. amoo métier amoo tous. li nga yaakaar ci son yi bu tayee nga wax lii bu subaa nga wax léeg-léeg nit da nga war a jéem a sàmm sa kàddu man tey Macky Sall maa ngi koy défendre parce que défendre bi mënul passé non may ma may bi ma ko passé tey li may waxal jeunesse bi tey moom laa koy liggéeyal tey hmm. ñaata yoon laay génn di wax ci jeunes yi nañ góorgóorlu nañ liggéey nañ fas jom nañ bàyyi gaal yi parce que gaal yi di solution hmm. mas ngaa dégg ñu ne recevoir nañ ma parce que soxlawuñu loolu ñoom kan lañ soxla ki leeni saaga ak di leeni xas kooku la ñuy noppi mais ki nga xam ñu ngi waxal réew mi hmm. pour lu jariñ réew mi doo a dégg ñu woo te man nekkuma fi pour toog pour Macky Sall woo ma dama jox xaalis wax dëgg yàlla jaar waa foog ni VAR da leen di neex ndax gis nañ fi bi moom tamit waaw wax na fi lu ne mais a yomb man naa way mën naa bind kan rapport bu ma dàq bind taxawul mu hmm. nekk ci jàmm réew mi nekk nekk ci jàmm mhm. parce que loolu dafa am solo gis nga am réew mënuñoo mhm. ko tabax te jàmm amul te évolution foog mu am foog révolution am macha allah loolu moom foog ñu bàyyi ko xel mhm. moom mu xam ne jeexal na na liggéey li mu fi dese ci mu rafetal ko lool bàyyi nit ñi ñu liggéey ci jàmm ak salaam ëllëg ku fi toog nga xam ne kat yaa doon ŋàññi Macky Sall yaa ko doon xas yow jeunesse bi jaamaarloo ak yow rek loolu kese mooy solution bi mais di xasante di saagante lii dafa amul benn njariñ ak di jàpp ay opposant di xoolal ngóor soosu li mu wax Sonko na laa war a rey loolu lu ko gën a ñaaw Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi bu taxaw na fii saaga MC Niass na ko bàñes juru la wax ju lu ko gën a ñaaw ah Koura Macky tamit saaga na eh, eh, Bara Dolly moom wax ko wax ju ñaaw joo xam du ma ci jaarat mhm. te dara fekku leen ci bu fekkee nag moom ko ànd ak moom loo wax day dagan na ko ànd ak moom loo wax dagan loolu baaxut mhm. loolu mooy indi injustice loolu mooy waral nit ñi di fippu dëgg la la mais moom wax dëgg yàlla. Uh-huh. bu ñu waxee jàmbaar la am na lu mu fi def. comme nag li mu fi def bu mu koy yàq. Uh-huh. ne gérer réew mi ci jàmm ak salaam 2024 am na ay leaders yu nekk ci ginnaawam. mu uh-huh. xel ñoom ku ci mën a posé candidat ñu ko seen biir. bu leen Sénégalais yi wóoloo fal leen bu dee Sonko lañ wóoloo moom la ñuy fal bu dee Karim Wade wala keneen keneen et cetera et cetera yi fal kooku. ayca te ñu bàyyi réew mi mu nekk ci jàmm ak salaam. loolu am na solo trop moom waaw mais dernière question bu ma bëggoon a ñëw rek doon nekk Y'en a la Y'en a a a fa gisatul sama bopp xaaj ba maanaam dégg naa <laughs> bi <laughs> man toujours léeg-léeg gars bu ñu may rëbb ci xaalis duñu ma ci gis parce que euh, loolu la ma benn gaan waxoon mu ne ma sawaay mm-hmm. fii Sénégal loo fi dugg rek dugg ci benn bu yàggu rek am na ko ma woo di ma wax loolu nee ma musique bi affaire bi yàqu na ba pare demal lijjanti ci xaalis demal politique yi ku la mën a gis hmm. demal gis ko mu jox la ci xaalis bi affaire bi yàqu na te kenn mënatu koo defar xam nga tamit bu fekkee ne yow nit da nga yaakaar ne la xaalis dafa nekk loo xam day jeex mhm. te gis nga am am bu léewut ni muy ñëwee noonu lay demee nit dafa war a di dundee ñaqam mhm. ndimbal baax na trop fekk la yow miy zaal yéene la jox la am liggéeyal mhm. loolu ku ne da koy rafetlu wala moo am liggéeyal loolu ku nekk mën na ko rafetlu mais kaay xasal ma nit wala kaay saagal ma nit ma jox la xaalis nit xaalis boobu boo koy lekk sax war nga tiit mais lu la gën a yaanaamaat waaw nekkoon naa fa wax dëgg yàlla 2011 ba 2012 ba 2013 laa fa génn parce que dama fa nekkoon ak ñoom di liggéey ci liggéey bu rafet mu amoon respect boo xamante ni ku mel ni Fadel Baro wala Sofia wala ku kilifa ay ñoom caat ñoom ñëpp ñu ngi foon ay fu malaat wax dëgg yàlla ñu nekk samay grand ñu nekk fa nekkin bu rafet parce que à chaque fois bu ñu daan def manifestation dañu daan envoyé SMS yi ñëpp di ci jot bu ñu waree def réunion la même chose ñu dem 16 ba parcelle inte euh, inte inte inte 16. Mm. ñu toog fa waxtaan li ñu bëgg waxtaan wàcc terrain bi jotee ñu wàcc mu ñu dem ba 2013 bi Macky Sall faloo mm. man jotutuma SMS. Mm-hmm. jotutuma message. waaw ma ne man lii lan moo tax. intérêt du des fois ma dajeek nit nit ne ma sa waay démb pourtant réunion nañ de. Mm-hmm. loolu très ñoom man la man réunion bi yëguma ko. Mm-hmm. ñu ne ma ree nañu ba benn jour maa ngi dégg euh, ñu ne dañuy def relais euh, assemblée générale dañu war a defaale benn conseil am obélisque. man xaaral ma dem ci assemblée générale bi mu fa demee expliqué ko Fou Malade mu ne ma yow de yaay vrai Y'en a marre yow vrai NTS nga mm-hmm. parce que xaaru ko la def SMS mm-hmm. da nga dégg affaire yi ci rajo yi rek nga ñëw mm-hmm. mais baax na après dañ ci waxtaan léegi par la suite euh, ñu ne waat léegi euh, Aliou Sané moom mooy jël numéro yi léegi képp koo xam bëgg nga mu jël sa numéro mu jox ma ma man sama numéro dootuma ko jox kenn parce que lii mooy respecté wuñ la yow numéro bi bi ñuy xeex hmm. yéen a nga ko amee woon même numéro bi laa ba léegi changé ma te numéro boobu ba léegi man moom laa yor wu ma hmm. pourquoi numéro bi duñ ko duñ ko jël bu piis ana piis boobu bu ñu daan envoyé sms yi waaw mais léegi bu piis parce que dafa am loo xamante ni gis nga ñàkk fayda la te hmm. man kenn du ma ñàkkal fayda gis nga man ni nga may gisee man gëw ma star man wala xadd karam naa bani aadama laa gëm nit ki laay gëm yow mais yow nekkal ay kon wala nga nekk Rihanna wala Beyoncé sama yoon nekku ci yow. nekkal man li ma am solo ci man. mooy nit ki respect bi nga war a am sama diggante ak yow. bi ma laajee ñu ne ma léegi Aliou Sané mooy dem leen fa ma man du ma jox kenn sama sama numéro bi ma demee ci bi. Gajaga dama doo fi que bi ñuy def concert bi ko euh, ñëwloo bi ñuy def réunion bi ñëwloo kon yow waroo man leen pourquoi waruma joué. ci laa fa nekk commencé xëccoo ba benn gel bu ñuy wax Charlotte koy nuyu au mi di goon asali moo ma woo foofu calmé ma maas ma nekk foofu di xaacu. mu ne ma maas waroo def lii waaw parce que ay ko mën a xaaral ci laa jëlee sama bati dagg sànni am na benn gaan bu nekkoon asalam bu ñu wax moom moom laa mujjee may sama bati ma dem sama yoon boo yëgoon na dagg de ndax fi nii moom romb nañ la moom dem nañ non romb wuñu ma kenn romb wuñu ma kenn romb wuñu ma ñoom gars yi ñoom dib bokkuñu woon yaanaamaar ñi nga bokk yaama ñooñu kan nga gis mu raw ma ci. bëri nañ. kan moo ma ci raw ñoom ñoom fu malaat gars yi. lan lañ ma rawee. ngeen lan lañ ma rawee fi ñu toll nii tey jii ñi ngi am seen i salarié peut être koo xam ne tey chroniqueur la biir TFM. Ah. tey jii wax na des fois comme li ngay wax. Hmm. xam nga président recevoir na leen. waaw ah. toog nañ wax moom est-ce président recevoir na la. man lu ma président recevoir man mooy loolu fa la rawante boobu nekk. <laughs> Ah! <laughs> <laughs> le président recevoir la fa la rawante ne. buñ la de foofu de buñ la xëyoon. bi xam nga man dama am niveau bu ma toll léegi. muy ban rawante bi xam nga fan la. suñu diggante ak suñu borom. sëñ bi mais damay bàyyi ma yeggale rawante bi foofu la nekk mais pas. man bu dee soxna déglu ma am naa soxna am naa soxna. am naa soxna am naa soxna. am naa ay doom waaw am naa soxna am naa ay doom ñi ngi lekk ñi ngi naan ah aw ma benn problème kon léegi lan lañ ma rawee ñoom bu dee kër maa ngi fanaan ci kër bu dee oto lañ yor maa ngi dugg ci oto yi di dem ak ñëw kon ñoom fu ñu taxaw ma taxaw fa rek yow da wala ma laal biis wala ma njàpp mais taxul ñu raw ma buñ la woon téléphone nga ñëwaat nekkaat su ñoom non yaanaamaar mënatuma fa dem mais du tey maa ngi am ñoom ay relation yu rafet ba léegi ku ma gis dinaa la jox cëru grand frère Mm-hmm. ku sama rakk mu jox la ciru rakk aw maa ñoom benn problème am benn temps boo xam benn journaliste bindoon na fi ne MC Mass ñaane jox a marre cent millions mm-hmm. pour bëgg a jaay journalam mm-hmm. ah, a jox nañ leen cent millions ba gaa yi bëri di ma woo waaw Mass li nga wax man leen nga naan liñ la waxal waaw ah, bu fekkee ne da nga ne nit dafa wax da ngay indi preuve mais yow mi tey mhm. na léegi la mhm. nga wax pour li xam li ngay wax lan la mhm. balaa ngay attaqué nit da ngay xam xam li ñu ko waxal dëggal wala nit wala may waxal nit ya yanaa nekkoon gisatuma sama bopp génn naa dem si sama jàmm ak salaam loolu am na solo kenn lu ma sa dégg ma xas leen wala ma jël benn wax bu ñaaw di ko teg seen der ku ma ci mag bu ma la gisee naa la jox cër képp kuy sama rak mu jox la cër waaw ndax tariqatul xada bi rahmatu saxir watu waaxir kabir noonu lañ ko suñ tubaa jànge yoonu teggin mooy nga wekk mag yërëm ndaw mhm. képp kuy sa morom nga def ko ni sa bopp man ci loolu laa nekk mhm. keneen nag ku gis leneen loolu yow la concerné mhm. mais man fa ma nekk maa ngi fa nekk ba léegi far nga nekk léegi ci Sénégal rek ci réew mi ak askan bi ok sa yëfi bopp yow kese génn ci yaanaamaar yow kese maa ngi ci musique bi waaw yow kese <laughs> <laughs> waaw ah. <laughs> loolu loolu loolu ay Sénégal ba ma nekkoon. Mhm. bul fa jéem a mm-hmm. xam nga xam nga xam nga xam nga nit ñi ñooy. gis nga léegi gars yi déggatuñu waxin moo tax ma la niveau bi may wax gars yi bëri duñ fa déggee. xam nga tey ni dañ da ba tolloo suñu niveau voilà dañ naan diw milliardaire la. mais milliards dafa nekk ci compte rek moom ko rek bu dee keneen a koy lekk. dëgg la bu dee rek keneen moo koy lekk. Mhm. oto bi keneen a koy war jabaram keneen moo koy jëfandikoo kon rawante bi nekku fa nañ jéem a defar suñu diggante ak suñu borom loolu moo am importance mais tey bu fekkee na nga bëgg xaalis wala da nga bëgg kër wala oto bu rafet nga amee ko ci ameen bu ñaaw ëllëg tam da nga koy pertaat rek mm-hmm. parce que fii dara saxu fii waaw te tey dee day bett gis nga léegi chaque jour nga dégg nit ku siiw ñu la faatu na ba ci bërki demoo Njaay sama frère Akon maa ngi koy jaalee di ko jaale waa Sénégal yëpp wax mm-hmm. dëgg yàlla mm-hmm. dem géej ànd ak doomam sëñ Fallou daanu fa faatu kenn mënu la wax lan moo ko dal te sëñ Tuubaa waxoon nag almawti yaat yi baxtatan wa rubamaa yàkkunu saa sa waaxin moxtarima dee ci ak mbetteel lay dikkee mhm. mu ñëw mu fekkal ngay borom yi soxla mu faagaagal la fii ku fi dee yóbbaale projet mhm. kon suñu way politique yi nañ bàyyi xel bu baax ci loolu nañ ci bàyyi xel bu baax réew mi war nañ ko mën a defar te Macky Sall tamit ak ñi mu ànd ñu bàyyi di tere manifestation mhm. parce que bu fekkee autorisé nañ ko benn problème du am mais manifestation yi nga xam tere nañ ko yoo rek am mais nañ bàyyi nit ñi ñu marché ci jàmm ak salaam ñu encadré leen ñu wax liñ bëgg wax dem seen yoon. mais Akon moom bokkoon. ah Akon Akon sama frère la mook sama rakk ñoo bokk benn papa. waaw sama frère la dañ maa ngi ñoo bokk benn kër sax bu ñu dëkk suñu macha allah l'émission defe na trop mhm. te lu neex xam naa bu ko defee dañ yàlla tënk fii xam naa ne di nga ñëwaat plateau bu ko defee lu bëri ñu daat koy yaatal moom macha allah ay ñu bu baax di leen wax ni tey ñu ngi daloon ki nga xamante ne moom mooy mhm. euh, a ko YouTube ko ah mu gën koo xamante ne rapport la waaye mhm. activiste la ah euh, ñu sa mot de ngay tàggatoo waaye may tàggatoo mooy di la sant di sant Sëñ di sant waa Sénégal 24 parce que Sénégal 24 sama yëf la man. dëgg la. wax dëgg yàlla ibbi ngeen bunt yi ba képp koo xamante ni bëgg na wax ngeen mhm. ibbil ko bunt yi mu ñëw mhm. wax mhm. waaye man moom dama bokk ci kër gi dëgg la kon nag di rafetlu bu baax di waxaat Sénégal ñun ñoo ko bokk nañ bokk ndey boo ko bàyyi réew mi mënuñu ko liggéey te jàmm amul parce que jàmm ci lépp xaj fi dool ko fii ñor di fitna bu fitna ñëwee doo ko tal moom mi nga xamante ni moom la affaire yi nekk ci ay loxoom na ko bàyyi ak ndox mu sedd guy du ko wàññi dara mën na dem liggéey waat feneen ak feneen ndax Abdou Diouf gis nga bi mu fi jeexalee dem na francophonie jël ko moom mën na ëpp sax avantage Abdou Diouf teraa ngay borom defal na ko ba pare bu mu yàq loolu ñu naan ko ay am nga droit def troisième mandat quatre seen tax di wax mais Sénégal taxu leen di wax mhm. te balaa ko saaga dem àndaat ak ki moom loolu na ci bàyyi xel bu baax a baax am na solo xam ne réew mi réewam la daf fi am njaboot am fi ndey am fi bàyyi comme ni ko fi ñëpp amee boo ko ci Sénégal képp mënu ko fi génne kon na ko rafetal rafetal demam bu 2024 incha allah mu organiser ay élections yu jaar yoon taxawee na le ku yàlla jox réew mi ñu xam ne kooku la jox réew mi kon waa salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ayca mi la ngay joxe seen ayca fa laay jaalee ndar képp di jaajëfal ki nga xam ni moom lañ naan. Serigne euh, Serigne Moussa Serigne Moussa Diop borom Nasru Serigne Moussa jóob maa ngi koy jaajafal bu baax a baax borom Nasru amaan mbégte ak contentement bu maax di ko ziare bu baax a baax di jaajafal grand technicien gis nga suñu suñu suñu kii bu bees bi suñu générique bu bees bi Dóor waar jinne cameraman ni jinne monteur yi l'homme qui crée chaque jour di ko bëggee waat bu baax a baax moom di la jaajëfal. ayca mi ngi noonu saa su nekk rek ñu leen di jaajëfal bu baax di leen wax ne ah foofu la ñu ndax jàppee li nga xamante ne nag moom mooy émission bi di la jaajëfal ñu si Mass euh, vraiment émission bi neex na trop doy nañu ah. tubaarkàlla ah, di jaajëfal sama naataango bi waaye tamit di jaajëfal ki nga xamante ne nag moom mooy Dóor waar bi suñu cameraman tubaarkàlla di ko jaajëfal bu baax saa su nekk rek daf ñuy génn fu bees. dëgg la ba tax na mu génn ñu si générique bi. waaye nag di ah. jaajëfal ki nga xamante ne nag moom mooy sëñ Ahmadou Diakhaté. Hmm. Ah, borom borom borom Mbuur tubaarkàlla di koy jaajëfal bu baax suñu sëriñ bu baax Euh, sëñ Amadou Diakhaté tubaarkàlla moom nag mu ngi ci TikTok bi mën ngeen ko follow mu daal leen fajal seen aajo euh, sëñ Amadou Diakhaté waaye nag di jaajëf bu baax a baax a baax a baax ki nga xamante ne nag euh, mënul ñàkk nag ndeysaan mu koy gërëm mm-hmm. muy Matar boutique mm-hmm. Matar iPhone nekkee si Aliou Sow côté Jumaa ja képp koo xamante ne nag bëgg nga téléphone bu baax mm-hmm. di ko daggee 5C ba iPhone 12 Pro Max wala 13 Pro Max yi Matar boutique daf koy jaay dem leen ngeen jënd ko te mu ngi si promo tabaski bi ñëw na gars yi ñu ngi leen jox nag dig daje ba benn incha allah ak beneen invité ci émission si bu baax jaa ngeen jëf